asalaamaaleykum mbokk yi mbég Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi nag tey dañ leen a indil ñaan goo xamante ni kilifa gu tedd gu bari xam-xam goo xamante ni xool na ko bax yërëm nit ñi tax mooy indil ni ko muy ñaan goo xamante ni day joxe wërsëg mbokk yi ñun ñëpp ñu ànd déglu suñu góor gi ndax xam-xam la bu wér boo xamante ni ah tabaarakallaahu am yërmaande gu ñu am ci yéen am ko ci jullit ñi ngir bëgg ñépp fu ñu nekk am fa jàmm kenn bañ leen a yërëm moo tax ma di leen ko jox te lii képp ku koy jëfandikoo kenn du la yërëm foo toll di faj say soxla bu dee dépense danga koy joxe dana la yomb booy fay location dana la yomb ñàkk dalay wan gannaaw loolu xanaa am na njëriñ di leen ci jox ndigal itam képp kuy seen am di jàmm kuy seen soppe ku ngeen yéene eh, jàmm yéene ko yiw mën ngeen ko koo baaxee fépp fu waay mën a ne soo koy jëfandikoo nii ñu la koy waxee moo xam yi Sénégal nga nekk moo xam bitim réew nga ne foo mën a ne ngay jëfandikoo lii kenn du la yërëm fa nga ne te foo tollu da ngay am aajo soxla boo am di ko faj incha allahu taala jox nañ leen ci digal képp kuy jullit rek ngeen envoyé ko ko bu ko kenn tey ci sa téléphone ndax ñun bëgguñu kenn ñàkk bugguñu kenn am problème dañ ko def nag def ko hadiyatan li rasulillah kon yéen waa siratu nabawiya tas leen ko joxe ko ngir ngeen am ci tuyaaba ji ndax ñàkk baaxul ci gor bi ci jëkk mooy saa boo jullee fajar bu ñu nee salaatu xayru mina naw mi jógal julli ñaari rakkay fajar soo ko jullee ba noppi nga jàng fatiha def salaatu ala nabi benn yoon daal di jàng inna anzalnahu fi laylatil qadr onze fois fukki yoon ak benn inna anzalnahu fukki yoon ak benn soo pare nga toftal ca subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazimi astaghfirullah nga def ko cent fois téeméer yoon ma baamtu ko fatiha benn yoon salaatu ala nabi bu la neex benn yoon inna anzalnaahu fi laylati alqadri wa ma adraka ma laylatu alqadr laylatu alqadr xayru min alfi shahrin tanazzalu almalaikata wa ruux fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xatta matlaa il fajr nga def ko fukki yoon ak benn onze fois bu nekk ànd ak bismillahi rahmaani rahim boo ca paree nga ne subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazimi astaghfirullah cent fois téeméeri yoon ñetteel bi mooy gis nga baat yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam nee képp koy def ci waxtu wi diggante suba ak ak fajar ñàkk wan la gannaaw sallallahu alayhi ko wax kon yéen a ko moom siratu nabawiya ñaareel bi mooy wala ñetteel bi mooy saa yoo génnee sa kër ba jël siwaat booy dugg sa kër rawatina sa néeg suufu sa néeg booy dugg sa néeg boo ubbee ne bismillah jiital sa tànku ndeyjoor nga ne bismillahi rahman nga ne assalaamu alayka yaa rasulallah da ngay nuyu yonent bi ubbil sa néeg ne karit daal teg sa tànku ndeyjoor boo tegee sa tànku ndeyjoor daat ne bismillah assalaamu alayka yaa rasulallah daan ni bismillahi arrahmani irrahim bismillahi arrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad daal di def salaatu ala nabi benn yoon bu la neexee sax qul wallahu bi nga def ko ñetti yoon ba tey baax na saa yoo génnee ba ñëw boobu rek kese kese ku ca yam dootoo ñàkk waxtuma laa nga boole ñett yépp nag képp koo xam ne yaa ngi def lii ñàkk won na la gannaaw incha allah nga saxal ko nag da koy saxal saa yoo génnee ba dugg say néeg booy ubbi rek neel bismillah jiital sa tànku ndeyjoor ne assalaamu alayka ya rasulallah bismillahi arrahmani arrahim qul huwa allahu ba mu jeex julli ci yonent bi benn yoon jeex na lii lañ leen indiloon tey comme cadeau indiloon leen ko ngi njëriñ loo xam ni jullit yépp laa ko yéene ngir ñàkk gi dafa metti tabaarakallaahu te ñàkk baaxul ci gor képp ku ko jot nag baaxe ko jullit bu ko téye bu ngeen ko jotee joxe leen ko baaxee leen ko jaamu yàlla yi ndax ngeen am ci yiw ndax ku dimbali sa mbokku jullit boo amee jafe-jafe yàlla dimbali la te fi mu ne problème mu nit ñi ñëpp mooy ñàkk te ku koy soxoo kenn du la